sant yàlla bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ak ñi fi julli ci waaye jaareel nuyu bi ci loxol imaam di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam eh, di ànd moom di sant yàlla bu baax ci biñ ko fekkewaatee eh, julliwaat ko ci jàmm eh, ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nu koy may at mu jot ñu tal ko fekke ko niñ ko fekke woon imaam ñëwati na defaat lam daan def def xutba bu teey bu tegu ci yoon ñu julli julli gu tegu ci yoon jiital ko ñépp topp ci ginnaawam mu def yëfi imaam def ni mu tollool def ni mu war a def ñu koy ci at mu jotit noonu la koy defee tey jiit ñu jiitalaat ko rek topp ci ginnaawam mu taxaw ci kanamu sàppasi julli ñaanal ñu yàlla ñaanal réew mi ñaanal Medina Fall ñaanal doomi Medina Fall loolu lañu ñu jël si woon tey loolu lañ fi fekk tey sant yàlla bi ñu ko fekkee sant yàlla cee ñaanat yàlla mu jiite ñu fi ay at yu baree baree baree bari ñu fekke ko eh, di taxam di ñaaxaat tam di wax ni comme ni mu ko moom nag du ko mën a wax sax ni mu ko bëggee waaye di fàttali ni ñun ñëpp néeg bi ñu yem ci muy néegu yàlla bi moom mu jiitu nekk ci kanam responsabilité bi nekk ci ndoddam su baaxee ñëpp la baaxal waaye su ci dara sooxee rek ñëpp moom lañuy xool mu nekk lu diis ci moom ñuy sant di gërëm commission bi fi nekk ak ñi fi nekk ñi nga xam ñu ñoo ko yore yore entretien bi yore organisation bi waaye di leen gën a ñeexaat ñaaxaat ci entretien bi di leen gën a ñaaxaat ci entretien bi ndax ñu ñëpp comme ni ma koy waxee at mu jot man bu ma jàppee sama bopp ndax ko fi ko fi dul nekk lu dul julli ba julli wala ajjuma ba ajjuma ngay ñëw yow daanaka defoo ci dara waaye ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ñu yore liggéey bi ñu jàpp ni ñun ñëpp suñuy kër ku ci nekk yaa ngi soo xëyee yaa ngi xool fu takk nga toppale ko këru yàlla ko ñun ñëpp ñoo ko war a àndandoo ñu leen di ñaaxaat ci entretien bi di leen ñaaxaat ci toppatoo gi liñ ciy def nañ ko yokkaat te xam ne liggéeyal yàlla la xam naa ni mooy nekk ndamul imaam nekk sunu ndam yàlla fay ni ko ci bark yonent bi sallallahu ci euh, euh, ñaan euh, ban jàngat ak jàngat bin ci mën a wax rek mooy delluwaat ci yàlla delluwaat ci yàlla waaye bu ñuy ñaan yàlla ba pare nañu xoolaat suñu bopp itam nañu xoolaat suñu bopp xool xool yi bu xol yi àndee ñu ñëpp ñu ñaanandoo yéenante jàmm ñaan gi dina gën a gaaw am na loo nga xam ne jullit bu ko dara téye bu ko dara yomboon dem ba yàgg mu koy jafe ñoom dañuy delluwaat seen bopp bu ñu delluwaat seen bopp nag du delluwaat ci kër ga pour xool li ngay jullee déedéet da delluwaat seen bopp seen relation xool xool yi xool xarit yi xool ñi nga daan àndal kóllëre yi ak dëkkandoo yi nan la xool yi mel bu ñu retourné waatee boole xool yi àndandoo waat ñun ñëpp ñu bokk ñaan ñaan googu dina gaaw a ñëw jullit nag ak lii ñoo ànd yàlla may la ba yàgg mu yéex laa may wala mu xañ la waaye su boobaa daf lay permettre yow sa bopp ngeen delloosiwaat delloosiwaat ci yàlla nag du dem ci jàkka ja déedéet mooy xool ci dëkkin wi nan dëkkee nan la ñu nekkee lan la ñu yéenante xool yi nan la mel. su bu buñ ko xoolee ba xam ne rafet na rek li ci des nañ bàyyi yàlla mu def yëfam loolu rek la ñu mën a jàpp ni lépp loo nga xam ne jullit yàlla nga koy may dem ba yàgg mu gis ci mu gàttal wala mu gis ci mu xañ ko ko lim man rek seet boppam nag bu koy seet bu ko seet ci fenn bu mu dellu ci alxuraan bu mu dem ci jàkka ja bu mu julli ji na xool digganteem ak ñi mu nekkal lan la leen yéene ak ñooñu leneen ko yéene te loolu rek foofu la mbir mi nekkee ñu koy rek ci projet bi nga xamante ne inauguré woon nañ ko ci Korité bi euh, euh, yooyu nga ko def ngir waaw loolu nag dama ci dañ tout le temps dama ciy bañ di wax ndax euh, jëf la ju yàlla tax jëf ju yàlla tax kenn du ko médiatiser jëf ju yàlla tax it doo bëgg pour di ci waxaat ndax soo ko jëfee ba pare cay xeeb ko doo ko mën di wax li nga jëf ca naw ko ngay wax waaye li nga jëf ca xeeb ko doo ci mën a commentaire lépp luñ ci def daal asaka ji defaguñ ko suñu yàlla may ñu dund suñu suma sañoon Medina Fall képp ku fi yóbbu naa yeewoo naa la yóbbu màkk su ma sañoon képp ku fi may la kër su ma sañoon képp ku fi yeewoo ma jox la oto waaye nag comme yàlla moom mooy joxe ci yaa ngi jëf ci li nga jëf xeeb ko loo ci passé rek duto ko bëgg a tudd looloo tax duma ci commentaire. Euh, def ngeen ay ñaan ci euh, def ngeen lan ñaaxaat euh, ci di rek gannaaw ci li ñëpp dégg ko te xanaa doole dellu ci yàlla rek ni ko alaaj may waxee. tuub rek nañ baal tuut nañ baal tuub tuubal yàlla delluwaat ci yàlla nañ tuubal yàlla delluwaat ci yàlla ab ab jàmbur ba jaaxle. day xaar xol ba mu tuubal yàlla dig dal su sukk ci kanam yàlla. jéggalu ko ku jéggaloo yàlla na ko jégal. yàlla wàcce wuñ ngir mbugal ñu yàlla wàcce wuñ ngir fitnaal ñu. ñun nag ñu ñu suuf ñoo ñoo ñoo am suñu tàggante ak doomu aadama. waaye nañu tuubi jéggalu. te te dimbalante te yërëmante. waaye ku mën a toroxal wa si sa morom toroxal toroxal ko rek defe njëkk nga ko lool lool loolu day loolu day buñ ko wàññi si wàññi ci réew mi am naa ci réew mi kilifa yi yëpp moom moom réew mi jàkkaarloo nañu nañu yërëme te bàyyi toppante bi nañu yërëm te bàyyi topp toppante bi yàlla bu ñu toppoon ba mu jël leen soxam si ngeen baal ma àq daal leen loxo jërëjëf jërëjëf amiin yaa rabbi allahu laa ilaaha illa yàlla maa bay nekk amiin amiin yaa rabbi